jàngat bi ñu am si li xew si actualité bi rawatina lañ fi gis euh, si fan yi si ginnaaw fële booru yaraax nga xam ne ay citoyens sénégalais yuy doxi seen yitte ñu arrêté leen ay samba boy xaw ma nu ñu leen ko mën a tuddee ciblé leen vise leen sànni fa loo xam ne dégg naa d'après si li ñu waxagum am na ñaar ñu si faatu donc ñuy xaar déglu xool rapport autopsie yi ba xam lan lay joxe comme détail mais lu ñu ñaawlu la dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax parce que xëy na fan yi yëpp ñuy wax affaire terrorisme ak yooyu ñii naan am naak amul état bi ñooy créé mais dama bëgg a expliquer leen rek si affaire terrorisme le fait ngay viser ay nit yuy dund daf loo xam ne seen bakkan xaj na si loolu acte terroriste la parce que xam nga acte terrorisme xam nga terrorisme déjà le fait sax nga terroriser nit ñi si dara rek c'est mais mais nga viser leen ba bakkan dam si rek loolu terrorisme la mënuñ ko woowee leneen lu dul ñan ñoo ko def loolu nag jàpp naa ne fi ñu toll ni état bi dinañu si leeral mais ñoo ngi ñaawlu bu baax lii xew si réew mi si manifestation yi Sénégal ñun ñoo ko bokk euh, war nañu xool nan la ñuy manifester lan la ñu war a def parce que tey di manifester di viser. loo xam ne sénégalais moo ko moom na mu def ba am ko ah defe naa yu si ëpp si coobareem du état moo ko may ñeneen ñi ëpp si sénégalais yi aussi tam ñu si bëri dañuy xëy di doxi di am lu ñu yóbbu seen kër tey ñu yàq leen seen liggéey ñu toog ay fan liggéey ñenn ñi dina métti si ñoom lool donc war nañ xoolaat ban xeetu manifestation lañ war a temps si opposition bi si kuje bi mais tant aussi si pouvoir bi aussi tam jël des mesures yoo xam ne dina protéger citoyens yi mais ñaawlu nañ ko ba fi ñaawlu yem ñoo ngi jaale famille yi nga xam ne loolu ñoom la dal mais même ñi nga xam ne jóge faatuwuñ maanaam te nga xam ne ay état choc psychologique jóge na si ñooñu dañuy ñaan yàlla euh, état bi su munee daf enquête dam si ñooñ wax ak ñooñ ba mën leen dalal seen xel bu baax a baax parce que tey fi ñu toll nii fitna bi bëri na ba nga xam ne xelu kenn doxat dalatul si Sénégal donc ñoo ngi woo Sénégal ñu xam ne Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk ñuy bàyyi fàttali leen politique du noonoo politique du noonoo dañu ñëw ku nekk am yéene pour réew mi ku nekk di manifester bàyyi sa mais war nañ mën nañ am ay euh, opinion yu divergent bañ a bokk xalaat mais nañ ko teg ci cadre politique bi te bañ a noonu bañ di weerante bañ di waxante lu ñaaw wala di defante lu ñaaw donc li am nag ñaawlu nañ ko ba fi mu ñaawlu ñoo ngi ñaan état bi daf si lim si war a daf population yi itam ñi ko si war a jàppale si enquêtes yi mën a dem fee ñoo ngi koy ñaan ñoo ngi ñaan nit ñi kon euh, jàpp ci bu baax a baax a baax. affaire xëy na position bi ma nekk dina xaw a difficilement mais li may wax rek mooy yéenewuma ko li ko dal fi ñu toll nii te yéenewuñ ko kenn yéenewuñ ko benn yónnewuñ ko benn doomu aadama métti na depuis un certain temps moo ngi nekk si fitna mais dëkk bi mais ak état aussi mais nag xëy na li ma siy wax loolu nag xëy na sax du engagé sama parti man lay engagé dama bëgg mu leer lool sama gis-gisu bopp sama xalaatu bopp laa siy wax yéenewuñ ko li fi xew. yéenewuñ ko liñ def mais ren rek laay wax aussi il faut que état aussi ñu respecter état de droit ñu xam ne état kenn du ko maanaam kenn du xeex état si sama gis-gisu bopp état kenn du xeex ak moom tooñ nañ la wala leneen lu mu mënti def xarlu ko jaaral fi nga war a jaar euh, président de la république institution la cadre politique nit ñi mën nañ si kiyante am na yoo xam ne soo ko doxalu nit ñi mën nañ si wax doxaleen mais am na côté boo xam ne sooy attaqué état institution yooyu aussi tam baaxul si réew man si sama gis-gisu bopp baaxul si réew ngir réew mi état dafa dépassé la personne du président de la république te am na foo xam ne lii xew aussi ni ñi dem si plateau yi di xamb man jàpp naa ne rafetul diw am na kii ne nañ ko lu tax tëjuñ ko dañ ko ragal loolu mooy yaa ngi poussé ñee aussi ñu def action loolu yëpp dafa nekk yoo xam ne sénégalais war nañ si bàyyi xel am na côté yoo xam ne juum na si woote yi muy woote mais it tam dafa nekk si rôle am en tant que opposant en tant que quelqu'un qui est menacé mu jàpp ne si population bi la mun a jaare pour que mun a faj ci yam état bi aussi li ñuy ñaan si ñoom mooy élégance politique élégance la du aussi soo amee doolee rek sa doolee da nga koy wone déedéet parce que fi ñu toll nii dafa laaj nit ñu xalaataat xool nan la ñuy def ba yóbbu Sénégal foo xam ne ak si yii ñuy wax ne dañ ko découvrir nan lañ mun a protéger Sénégal gis nañ li fi xew Niger ak yeneen ak yeneen nañu moytu geer ñu ñuy génn tuuti xam nañ li si guerre dëkk yi guerre am yëpp jafe-jafe bëri na fa buñ ko ñaan yàlla nañ ñaan yàlla jàmm dellu si Sénégal te man gëm naa ne Sénégal jàmm fi war a am képp ku fi indi ay it ku mu mënta si nguur ak si keneen si man ak keneen ah jàpp naa ne si yow lay delluwaat. donc ñoo ngi ñaaw ñoo ngi masawu coono bu baax euh, Ousmane Sonko di ko dal mais état bi ñoo ngi koy ñaan mu nekk à la hauteur de sa mission. parce que nguur soo ko yoree rawatina président de la république dafa njaboote Sénégal yëpp moo ngi mel ni chef de famille du lu ñuy fayantoo mais it lu ñu mënti wax it état dañ ko war a respecter tam buñ ko songu parce que l' état nous appartient à tous l' état est garant de la population garant de des citoyens. tey ku fi nekk wax dara état it suba ñooñu muy force de défense et de sécurité profité damay profité sax si occasion bi di joxaat njukkal force de défense et de sécurité xëy na ñoo ngi leen di wax lu nekk mais si man boog personnellement li ma xam je sais que ñoo ngi def effort yu bëri ñoo ngi sacrifié wu lu bëri parce que ñoom population bi lañ fi nekkal nelawatuñu lekkatuñu naanatuñu ñoo ngi leen mettre tout le temps si mbedd bi ñooñu. ñii ñoo bokk suñuy frère lañ frère ñëpp dañu bokk ñii bokk si am ñu ñu àndal ñu nekk si kujje bi ñii am ñu ñu àndal ñu nekk si état mais ñooñu dañuy ñëw pour toxal xam sécurité nationale nañ leen joxaat cër bi ñu leen war a jox nañ leen joxaat cër bi ñu leen war a jox bu baax a baax loolu daal laay wax si par rapport ak Ousmane Sonko maa ngi ñaan yàlla gars yi trouver solution mais moom aussi ak ñi muy àndal maa ngi leen di wax ñu nekkaat amaat retenu mën a def profil baa si yenn yi ñu trouver solution concernant leneen li nga wax si parti bi ñu dissoudre tam euh, sama gis-gisu bopp mooy xëy na manque expérience ñi nga xam ne ñoo ko yor parti bi bu structuré si ni ma ko gisee nekk jàmbaar mais jàpp naa ne manqué nañ expérience parce que ah amoon expérience trop am na communiqué yoo xam ne parti politique du ko def. yenn message yi di si nag man jàpp naa ne erreur boobu mooy li waral tey ñu poussé ba dissoudre seen kii mais loolu it comme ni ñu wax rek acte bu njëkk moo am ñoo ngi ñaan yàlla yàlla def sutura ba xëy na ñu delloo leen li nga xam ne ñoo ko moom Sénégal ñëpp dem suñu dem élection ñu compétir loyalement et puis yàlla mooy fal ki nga xam ne ëllëg euh, moo war a jiite réew mi nguur moom yàllaa koy yox dañuy sabablu rek ku si nekk am yéene mais dañuy sabablu mais nañu faxee aussi Sénégal li ma leen di ñaan ñu xool si fal bi nan lañuy fale falee ça c'est important ñu bañ di fal si maire ñu bañ di xii euh, kii fii la far kii fii la far déedéet Sénégal lañ nekk intérêt Sénégal nañ xool nan lañuy xool ñi ñuy jiital nan lañ leen di jiital. waaw loolu de xam naa day nekk continuité bi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne demoon nañ si dialogue bi point yi nga xam ne soulevé woon nañ ko pour ñooñu ñu delloowaat leen seen àq ak seen yeleef ay citoyen sénégalais lañ xëy na am na lu leen dal su ma jëlee ci njëkk muy Karim Wade mooy tey am na tu attekaay bu ko atte woon buñ tuddee CREI yi nga xam ne tey dissoudre nañ ko mais suñu xoolee su fekkee ne la taxoon ñu topp ko te am ñeneen ñum si bokkaloon moom rek lañ si sanctionné je pense que xëy na mun nañ xoolaat lu waral loon mun nañ mettre en doute procès boobu ni mu demee tey dissoudre nañ CREI lan la ñu xalaat tey décision yi CREI jëloon dans le passé tey lan moo si taxawaayu état bi lan moo si taxawaayu justice ndax Karim dañ koy delloowaat mu damaat comme ni mu koy réclamer moom ak waa PDS ne ñu damaat si procès wa ilaa ndax tey lu ñuy waxtaanee la loo xam ne tey assemblée moo si décidé ah nañu am yaakaar wóolu député yi mais nañu def loo xam ne ëllëg. du doon lu ñuy ŋaañee suñu assemblée parce que assemblée aussi itam loi kenn du ko voté si lii neex na diw wala nangam mais nañu xool li ñuy voté loo xam ne lii dina indi njëriñ sénégalais yi mais lii aussi dina ànd ak yoon. dina ànd ak yoon ñoo ngi leen di ñaan man de maa ngi bëggaat ñu delloo leen seen àq ak yelleef ba ñu mun a dem compétir Karim doomu Sénégal la Khalifa aussi teg nañ ko loo xam ne diisoon na si moom muñ na nattu bi ba yegg si fii ñaan na waxtaan na. comme assemblée dialogue waxtaan nañ ñoo xam pour delloo leen man de jàpp naa mën nañ leen delloo seen àq ak seen yelleef ba ñu mën a dem bokk compétir comme ñëpp. waaw da nga ma posé question boo xam ne nag dinaa xaw a gën a nekk à l'aise pour tontu si euh, Sénégal tey suñu analyser la situation politique suñu analyser li fiy xew suñu analyser tey ñiy woote pour jël réew mi man de jàpp naa ne war nañ posé question kii ñuy jiite ji ëllëg lan nan lañ ko war a falee lan la war a am mooy kan la war a doon lan la xam lan la mën tey ku mel ni Hadjibou jàpp naa ne du parce que dañu far tey su yàlla dafa nit àndatuñ li may wax ni conviction la si man fi mu jaar parmi tous les candidats yi fi taxaw ñi fi nekk di woote def naa expérience kenn ëppul ko ko expérience d'état laay wax am na expérience d' état am na expérience ni muy parce que yàgg na si état en tant que un technocrate boo xam ne liggéey na ba yegg sa fi mu amul lenn loo xam ne mun nañ ko ko toppee si liggéeyam mu def ko avec des honneurs yàlla it mayaat ko poste politique muy ministre it si lool it mu doxal si ba ñëwaat jiite ministre yi muy premier ministre doxal jóge fii dem UEMOA liggéey ba nga xam ne père président africain yi nekk si UEMOA rafetlu nañ liggéeyam te mu continuer tey jii di liggéey ak ñooñ ak yeneen état am xam-xam boo xam mu ngi siy jëriñ ñeneen tey def naa ku mel noonu Sénégal war na def le tout pour mun ko jël pour mun ko capital mu tey réew ndax jub na xam na ni ñu yore réew homme d'état la am na yar am na teggin mais surtout man li may wax rek mooy njub quel que soit xam-xam bëri na Sénégal ñu am xam-xam mais loo am am xam-xam te juboo yore réew dina métti lool te Sénégal dañ toll foo xam ne dafa am lu bëri dañ ko war a réformer waat si administration Sénégal ñu réformer waat administration bi si lu bëree bëri tegaat ak lépp si yoon pour que Sénégal dem kanam ku mel ne Ajuba jàpp naa su ñëwee am naa yaakaar ne dina defaraat yëpp ndax du koo xam ne tey day ñëw di xeex pour toog éternel te def naa su ma juumul ci niñ defee constitution bi am na âge boo xam soo ko amee mënatoo nekk candidat donc ce qui fait tey su ñëwoon it benn mandat la mun a am mandat boobu tey su ko amee jàpp naa ne du doon loo xam ne dina ni koy tuddee mooy le mandat de la rectification maanaam dina delloowaat yu bëri si administration tegaat lépp si yoon ba ñu mënaat jox cër administration administration wi tam ña fay liggéey xam ne dañ fi nekkal ñëpp nekkaluñ fi ñii ujje wala ñi ànd ak ñoom donc te loolu def naa yàlla may na ko si expérience jot na liggéey lu mot 30 ans surtout au niveau ministère des finances kon kooku jàpp naa ne tey Sénégal moo ko soxla waxumal sax tey moom moo bugg mais Sénégal moo soxla ku mel noonu te su ñu jëlee ñu nekk si kujje bi yëpp te def naa loolu Sénégal kenn du ko werante def naa expérience d'état kenn gënu ko ko fi am. bëri na nag nit ñi lu ñuy wax duñ koy dégg parce que euh, un homme d'état comme moom xam li muy xam euh, il peut pas sa euh, il peut comme ñeneen ñi lu ko neex wax wala nekk si télé di wax déedéet. moom kàddoom dafa nekk loo xam fu mu ko waxee rek nit ñi dañ koy kii donc moo tax il faut que lu bëri balaa mu koy wax mu sàmm ko bu baax a baax a baax donc man damay ñaan yàlla ñu Sénégal xoolaat nan la ñuy tànnee suñu njiit yi si yan critère objectif mu bañ a nekk loo xam ne tànn la boo xam ne tànn mer la peu importe ki ñuy jiite suba na Sénégalais yi réfléchir xool yan critère objectif la ñuy teg pour jiite euh, pour kii ñun nag yaakaar boobu lañu am si Adjibou si liñ jot liggéey ak moom depuis cinq ans. wala lu ko ëpp wax dëgg loolu lañ gis si moom. dénkaane bi may wax mooy su ma commencé si état bi nga xam ne mooy kii organiser loolu moom dañ koy nangu suñ ko bëggee ak suñ ko bañee mooy état mooy organiser mooy li ñëpp laaj mooy des élections inclusives des élections responsables boo xam ne képp ku si war a bokk rek te nekk am critères yu ci mu ci war a bokkee rek nañ fexe na bokk. élection yi ñu damit li ñuy wax ne rencontre la candidat ak population yi suñ si yegsee population yi nañ am retenu du affaire xeex du reyante ñoo bokk senegal suñu yàqalee suñ bopp it ñun ñooy defaraat te si ñun lay jógewaat dëkk bi métti na économie bi métti na na nit ñi amaat retenu xam ne senegal benn bopp la ñëpp ay ñëpp ay mbokk lañ ñuy politique taxu ñun non mun nañ politique. ku nekk far fi nga far ñuy dem si idée dem si ay plan dem si ay loo xam ne idée yoo xam ne lii mën na avancer loo dëkk bi que di xeexan di xeex di reyante maa ngi ñaan population bi nit ñi nañ amaat xel ñii leen di woo politiciens yi commencé si man ak ku munti doon képp ku lay woo damal si mbedd bi def nangam moytul ngir kila lay woo xoolal ndax moo ngi si mbedd bi wala nekkul fa tey bëri na ñoo xam ne je parle en connaissance de cause ay jeunes yu ma xam ñu jàpp leen démb rek ñoo ngi may démb si guddi maa ngi jot message koo xam ne dañ ma ne jàpp nañ ko si manifestation démb mu nekk nit ku ku ma xam nit ku jub yor njaboot liggéeykat nekk taalibe ah xaw ma lan la daf bañ jàpp ko maa ngi ñaan état ah. ñooñu nañu xoolaat ñiy jàpp waxtaan a ñoom pour mun leen libérer ñu delluwaat ay borom jaboot lañ mais maa ngi ñaan nit ñi tam ñu am retenue suñuy manifester nañu manifester ak responsable ànd regroupé wu dajaloo wax li leen naqari daf ay brassard wala daf ay message que dam di yàq di woon nit ñi xale yi di yàq xale yi yàq nañ ko nañu moytu lu mel noonu man de loolu du ma si ànd tey du ma si ànd suba and ak état nag loolu moom dama koy wax mu leer ànduma ak état mais it ànduma ñi nga xam ne dañuy yàq. nañu ñaan suñu doom yi suñu raq yi ak ñëpp nañu am retenue li gën a am solo nag peu importe le candidat dëgg dëgg bi mooy ñi képp ku am lu la naqari yoral sa kart sa poche bésu urne yi bul xaar kenn soo julee fajar wala quelque soit si diine bi nga ne nga def li ngay def damal si urne yi damal fa nga war a vote nga voter si jàmm ñibbi sa kër def naa su ni ñi demee voter en masse ku nekk exprimer li nekk si yow kenn du dañu sàcc élection yàlla nag après moom mooy fal ki mu war a fal donc maa ngi ñaan yàlla na jàmm am si réew mi yàlla na jàmm am Sénégal yàlla nañu yàlla dafa président bi gën si ñun gën si Sénégal mu nekk koo xam ne day eh, yóbbu Sénégal Fuuta su ñëwee kii gagné ñëpp ànd nangu ñi muy mën a liggéeyal tamit jàpp na ñi mën na liggéey ak ñoom am nañ compétence peu importe fu ñu bokk mu xëcc leen jàpp leen liggéey ak ñoom di ñaanaat it yërmande si population bi di ñaanaat état bi ak képp ko fi ñëw nañu fexe góorgóorlu si ay plan yoo xam ne dinañ ko teg pour l'employabilité des jeunes mu bañ a nekk loo xam ne wax lay doon mais mu nekk si loo xam ne lu ñuy teg bët la lu ñuy laal la si gox yëpp nag ñu xam ne mbir bi du dakaar kese région yi rek yëpp la donc loolu daal maa ngi koy ñaan bu baax a baax a baax maa ngi koy ñaan.